champion maa ngi siyaar. yee dellu siyaar naka waar siyaar naa leen. alors yow foo toolu. waaw man maa ngi pare rek di waaj di ànd ak ñoom di leen gunge ci entraînement yi di ñaan yàlla yàlla suñu borom may ma combat. gars yi ngi wax sa combat ak Papa Sow. waaw maa ngi koy dégg ni ko ñëpp di déggee noonu laa koy déggee mais loolu fierté la ndax Papa mbër la mbër la boo xamante ñu ñëpp a ko naw daal waaw. alors bu weesoo bu weesoo moom daan nañ dégg sa combat ak euh, Ama mais dafa mel ni gars yi génn nañ ci mais pourquoi gars yi insister est-ce que du lu mu lu ngeen jógee yéen ñaar ñëpp ci défaite. non lamb la rek lamb moom ñi war a tax bëri rek ñooy bëriñ lamb yi war a taxaw rek ñooy taxaw mais ñun ñoo ngi entraîné nekk suñu entraînement di déglu suñu staff waaw. mais est-ce que Siteu parfois du dafa dafa dafa dafa cher moo tax est-ce que parfois Siteu Siteu conscient na ni war na bëri ren balaa saison bi di jeex mu ne xaaral ma wàcc tuuti cachet bi. non loolu man fooguma loolu quoi xëy dafa jotagul rek. dafa jotagul lamb rek ren. mais xalaatuma loolu quoi. lan ngay wax waaw xanaa di leen nuyu di leen jox loxo kenn ku si nekk foo nekk rek maa lay siyaare di lay